à ce que nous assistons actuellement. Il y a un relancement global, un point important de notre société ne croit pas à cette maladie-là ou bien ne croit pas à ce que les autorités disent. Et là également, ça engage la stratégie du ministère de, la Santé. Mhm. Je pense que, euh, euh quels que soient les éloges qu'on peut qu'on peut, peut, faire à notre technostructure du ministère de la Santé. Ils ont failli dans la mesure où ils ont plaqué des stratégies qui sont élaborées depuis je ne sais où, depuis Genève, je ne sais où, à une société, la société sénégalaise, qui a sa trajectoire politique et sa stratégie n'était pas adaptée à, notre, nos réalités. Elle n'est pas adaptée à la réalité et malheureusement, les gens se sont rendus compte que, ne se sont rendus compte de ça que tardivement. Tous, les spécialistes aujourd'hui s'accordent à, à dire que l'approche communautaire a été l'approche la plus adaptée parce que nous sommes dans un contexte où les infrastructures ne sont pas ce qu'elles sont, le plateau médical n'est pas aux normes, euh, les populations n'ont pas ce degré de culture, euh, pas, euh, ne sont pas les populations occidentales. Donc ce qu'il fallait faire, c'est de développer l'approche communautaire en impliquant les acteurs, notamment les acteurs religieux et les acteurs coutumiers, dont les discours peuvent influencer les comportements dans les quartiers et, dans les villages. Ah, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et mm-hmm. même au regard du budget du ministère que le ministère de la Santé a soumis au président de la République, on voit que les fonctions de surveillance de l'épidémie, de contrôle du virus, ont plus de crédit que la fonction d'engagement communautaire. Mhm. Donc ça également, euh, on a beau santé les mérites du ministère de la Santé, mais c'est quelque chose sur laquelle il faudra qu'on s'arrête pour quand même les gens puissent savoir réellement qu'est-ce qu'il en est. Mhm. Aujourd'hui, euh, il y a des constances dans la maladie. C'est vrai que quand la, maladie est venue, il y a beaucoup de, de, choses qu'on ne comprenait pas de cette, pandémie. Mais aujourd'hui, il est établi que c'est une maladie qui est très létale, c'est les personnes du troisième âge. Nous attendons à ce que le ministère de la Santé puisse avoir une stratégie segmentée qui cible certaines couches de la population. Mhm. Et je n'ai pas trouvé vraiment honnête et envers la jeunesse le discours que le ministre de l'Intérieur a eu en disant que euh, c'est la jeunesse qui, qui, propage la, maladie. Ces genres de discours-là, à mon avis, ce ne sont pas des discours responsables. On euh, entendu le Ce qu'il a de, dire par là, c'est que les, personnes âgées étaient plus vulnérables. Un jeune qui attrape la maladie peut facilement supporter le virus, ce qui, ne, ce qui peut ne pas être le cas pour une personne âgée ou déjà faible, euh, rendue faible par une maladie. Mais tout ça, ça montre qu'il y a une faillite, je ne dirais pas une faillite, qu'il y a un échec dans la communication. Parce qu'avant même qu'on décompte un premier cas au Sénégal, il était établi que la maladie était plus létale chez les personnes du troisième âge. Et que si on libère la jeunesse, ça peut avoir un impact au niveau de cette tranche d'âge-là. Qu'est-ce qui a été fait à l'époque euh, il n'y a pas eu de communication correspondante pour sensibiliser les jeunes, pour sensibiliser les personnes du troisième âge. Il a fallu qu'on enregistre plus de 200 morts qu'on passe d'une létalité de 1% à une létalité de 2% pour que le ministère de l'Intérieur, à mon avis, c'est même, même pas l'acteur qui, devait faire un tel discours dans le gouvernement. On aurait peut-être entendu le ministre de la Santé ou le porte-parole du gouvernement. Là, on aurait compris. Avec ces différentes certains pensent qu'il est en train de jouer le rôle du Premier ministre. Le poste de Premier ministre que Maxal avait supprimé, aujourd'hui, il faut quelqu'un au front pour parler aux Sénégalais. Et c'est ce rôle qu'est en train de jouer Alain Ndiaye. Bon, moi, moi, je suis d'accord qu'il y a un vide de pouvoir, hein, qu'il y a un mhm. vide de pouvoir que les acteurs essaient de remplir. C'est normal, hein, parce que c'est la succession de Macky Sall qui est en vue. Et c'est dommage aujourd'hui que les gens instrumentalisent, notamment mhm. les ministères concernés, du, commerce, euh, du, des transports terrestres et aériens, les ministres de, la Santé, les ministres de l'Intérieur. C'est vraiment c'est irresponsable de leur part d'utiliser cette vacuité pour pouvoir asseoir leurs ambitions politiques. Ce n'est pas ce dont on attend Mais le problème aujourd'hui fondamental que nous avons par rapport à cette euh, pandémie, c'est que le gouvernement n'a pas de stratégie. C'est ça la vérité. Le gouvernement fait de tâtonnements dans la mobilisation des ressources. Ce qu'on constate également, dans la répartition de ces ressources-là, il y a une, nébuleuse extraordinaire. Avec tout ce qui a été fait jusqu'ici, vous dites que le gouvernement n'a pas de stratégie. le gouvernement, une stratégie, c'est des axes d'intervention, c'est des objectifs qu'on se fixe, qui sont quantitatifs ou qualitatifs qui sont déclinés en axes d'intervention qui sont prioritaires les unes des autres. Vous dites ça parce que le virus a gagné du terrain au Sénégal Bien sûr, aujourd'hui, je pense que personne n'ose, et nous autres qui sommes habitués à regarder les plateaux, vous ne verrez plus un responsable de la paix. Mais la situation est pareille partout dans le monde. Non, la situation n'est pas pareille. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui le Sénégal fasse partie des pays qui sont inscrits dans la liste rouge de l'Union européenne. Au moment où les citoyens des autres pays d'Afrique peuvent aller dans cet espace-là et revenir sans avoir de problème. Le, Sénégal aujourd'hui dans les 10 pays qui sont les plus touchés par cette pandémie. Mhm. La vérité aujourd'hui, qu'il y a eu pas mal d'échecs sur les dans, par rapport aux mesures que le président Macky Sall avait prises. Il y a eu un retard dans la, dans la fermeture des, frontières. La répartition qui a été faite du, crédit n'a pas été bonne. On ne peut pas comprendre qu'on fait face à une maladie et que le ministère du Développement social puisse avoir un budget estimé à, 130 à 103 milliards au moment où le budget du ministère de la Santé est estimé à 78 milliards. Ça, ça montre qu'il y a un problème de compréhension, un problème de priorisation. Et tout cela pose tout simplement une seule chose. La santé n'est pas on bien a prise politisé, au Sénégal. On a politisé cette pandémie-là. Et le fait que la logique politicienne prenne le dessus sur la logique technique a fait aujourd'hui que les techniciens, pour la plupart, ont démissionné. Ils ne sont plus en phase avec le gouvernement et ça donne ce que ça donne et c'est malheureux pour ce pays. Et nous ne sommes pas du tout heureux de venir ici et de constater et, de parler d'échec. Nous aimerions vraiment venir ici et célébrer avec vous. Ok. Euh, élément bi mi ngi noonu euh, aljuma euh, saw mhm. bon élément bi dégg nañ ko mhm. bon ba xam moom manque de communication la entre l' état et le peuple wala ba xam tamit comme ni mu koy waxee tamit pandémie bi dañ ko politiser wala tamit euh, état bi est-ce que tamit teel na jël ay mesures teel na jël ay mesures parce que euh, tamit lu ñu waxaat lu ñu waxaat lu ne tamit bon rétro lay doon. Mhm. mais nag euh, baax na tamit ñu xaw a. jàngat def waaw def def def def rétro tuuti ci ginnaaw. parce que tamit da ngay xool. Mhm. premier ak bi mu njëkk a def. mooy au lieu que tamit feebar bi mu ñëwee ñu dugal si population bi mais day yëkkati rek yëkkati armée bi. waaw jëkkati armée bi def ay couvre yeneen ak euh, euh, yeneen euh, tamit bon yooyu yëpp ci bir léegi yow analyse bi nga jotta def ci élément bi. merci jërëjëf Baro donc loolu dañuy rappeler touti suñu ben leçon bu jangone ci ku ñom Michel Crozier. Mm. dañu amoon ben problème muy problème intégration xam nga il faut intégrer quelqu'un mm. dans un dans un combat au lieu de le forcer à mener le combat c'est-à-dire dès que savons que le Covid bi tu l'as bien dit lui aussi il a bien dit bon je suis d'accord sur ce côté le fait qu'il y ait problème de communication donc c'est une faute communicationnelle liée à un certain donc donc un certain nombre de discours qu'il fallait pas tenir devant le peuple et ça bon a impacté le désengagement mm de façon notoire. te feebaru dem dañ ko diaboliser. dañ ko diaboliser c'est-à-dire dañ euh, diaboliser. Euh, de de de telle de telle sorte que tamit bon moi comme limay wax rek amna manque de communication. voilà entre l'État et le peuple. donc fofu la jëmoon c'est-à-dire xam nga dafa am deux aspects yo xamné ne su liyee nit. Mm. wax nako mom sax Sanki aussi que wax nako. ko. Mm. mooy nit ak ki wax ak ki déglu. Mm. Ki déglu aussi day un retour dañ wax l'émetteur et le récepteur. ils sont dans un contexte référentiel. Qu'est-ce qui les messages? Si jamais le récepteur n'est pas prêt à recevoir les messages de l'émetteur, ça sera un problème. C'est ce am ci li nga la communication La population bi biñ nee de ak façon Covid bi selon ni ñu ko waxee ñu bëri dañoo taxaw ne je suis pas d'accord Covid bi ba léegi ba léegi am na ba léegi am na ñuy nier euh, l'existence euh, euh, kii feebar bi am na wala amul am na ñoo nga xam ni ba léegi dañ koy dañ ko nier mooy loolu am na comme ni ma ko waxee rek day indi si manque de communication waaw non si si am na sax hmm. xam nga loo xam ni sëñ Fallou dañu woon hmm. lu amul du am tur hmm. segam ñëw na lu fa indi tur bi kon covid am na mais li ma d'accordul mooy ñoom nanu ko niñ ko ñu waxee noonu la amee wut donc c'est-à-dire selon niñ ko ñu waxee communication bi bi ñu ci def moo méngoowut ak réception bi nga xam ni population bi waroon nañ ko am ci message hmm. boobu. est-ce que tamit comme par exemple euh, parce que comme ñun ni ñu ko waxee Sénégal dafa am ay réalité am. Hmm. est-ce que tam mënuñu ko woon méngale comme ñun suñuy réalité parce que li ñu xam parce que le fait tamit école yi ñu tëjoon ko. Euh, lieu culte yi tamit ñu tejoon ko parce que tamit ku ni lieu de culte ça dire que nit ñi dañ fay dem euh, di jaamu suñu borom. Mm-hmm. te des fois day am ay presse maanaam euh, imam bi des fois day wax ak fidèles yi. Mm-hmm. est que yooyu yëpp waruñu ko woon profité ci loolu comme supposons ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu respecté woon mesure barrière comme ni nga ko waxee woon. bien que bien que tamit dans l'islam waxuñu que ni mbooloo dañoo war a tasaaroo. waaw parce war a dajaloo. dañu war a waaw xam nga information continuité la. Mm-hmm. c'est-à-dire li nga wax bi état bi jógee rek. Mm. jël lépp yenul ko boppam. Mm. te deful intégration population bi. Mm. foofu la faute bi njëkk foofu la amee. jàkka yi lii la boo xam ne peut-être waroon nañ ko utiliser pour mu nekk relais. communication boo xam ni nit ñi dañuy changer de comportement. xoolal li nga xew li xew fan yii yëpp. dañuy indi comme yaa ko wax. dañuy indi armée bi ñu ñëw ne nit ñi force def leen masque. day def masque nga won ko ginnaaw mu dindi ko kon kooku volontairement c'est-à-dire de façon volontaire participer wul ci xeex bi loolu laa ne foofu la état bi échec c'est-à-dire Michel Crozier moom laa doon doon leeral dafa amul benn entreprise faw ñu leeral ko de façon bu gàtt rek mu ñëw par exemple chef bi day ñëw ne def leen lii lii laa bëgg série bii nañ génne lii def de façon mécanique loolu la ñuy wax la taylorisation et la standardisation ci système bu njëkk ba les capitalistes yu njëkkee daa am système yu ñu doon liggéey ñaar yooyu ñoo ci fësoon kon Ouvriers, ouvriers, dañuy ñëw rek force def leen li force Michel Corosier, ci côté mu ñëw woo une ah, entreprise bi kat seen entreprise la mel lu responsabiliser mm. bi la mm. ah nañu corona fi dara mm. su ngeen du dama bëgg la parce que lor na nit ak nit ak intégrer population bi ci bi mais soo population takk leen di masque affaire gis nga loolu àdduna boobu. Hmm. àdduna boobu ku koy doxee échec rek. àddunay force maanaam àddunay doole est-ce que est-ce que loolu dictature. est-ce que foofu laay waxee c'est-à-dire foofu hmm. def leen lii force àddunay ku deful lii moo dóor la dama ne képp ku koy def képp ku koy doxee doo am ndam. Hmm. àdduna bi nit ñi dañoo libre. nit ñi dañoo fipp. psychologiquement xale bu ndaw bi sax xool ko boo ko bëggee teg yenn yi day fipp hmm. kon nekkatuñu ci àdduna soo xam ne dañuy forcer nit ñi naan leen force fii ngay jaar hmm. da ngay nit ki nga intégré ko moom laa la doon wax sànq ci Michel Crozier bi ñu comparé ñaari entreprise yi entreprise bi nga xam ne dañ faa teg armée bi hmm. teg fa ay garde naan leen ko liggéey siwul heure bi force lii nangam li teg pression bu métti ci ñoom après ñu relâché yeneen employé ne leen léegi yéen xeex bi seen xeex la xeex bi mooy lan dañu bëgg am résultat combat bi kat mooy nañu mëne ba fexe ñu gagné am bénéfice ci liggéey bi léegi nag yéen seen bopp xam leen ni yéenay jëlal mbir mi seen bopp intégrer leen en communication ñoom ñu bokk nga xam ne day sentir ni moom combat bi combat am la mais population bi dañoo sentir ne combat bi du seen combat combat état la léegi nag de ce fait lan lay jur en retour population bi day désengagé wu de un de deux li nga leen di wax buñ la gisee dinañ ko def buñ boo leen wanee ginnaaw ñu ñu dindi ko c'est parce que dafa am communication bu waroon jiitu mooy gëmloo nit ñi jaar fi nga war a jaar ba nit ñi xam ne li lu am la lu mel ni ki sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla ko suñu borom yàggal ba mu jëlee 200 millions joxe ko kooku jàngale na ba pare jël masque takk ko wane na ni lii mooy yoon bi mais nekkul foofu di jël armée bi di teg ci kaw nit ñi di force déedéet jaru ko fexeel ba nit ñi ñoom seen bopp volontairement ñu bëgg nangu ànd ak yow si lii moo loolu mu mooy li ëpp doole su dee nag da nga leen a force ne leen force di ngeen def lii te yow mënoo ñoom maanaam armée bi mënul dëkk di wër si ngaay di mënut a nekk di. te boo génnee fii boo bu ngeen demee léegi balaa ñu kii bu la neexee tekkiwaat seen masque di dox. loolu mooy faute bi ma jàpp ni erreur bi ma jàpp ni. moom la communication état bi njëkk a def mooy fexewuñu ba intégrer nit ñi. fexe leen a boole si li nga xam ne mooy xeex bi. beneen bi mooy. Euh, sénégalais yi ñoo jugal seen bopp ñoom. Hmm. cotiser seen bopp jël xaalis ay million ak i millions. cotiser ko non non jox ko état bi. jox ko état bi état bi en retour lu mu def selon ni mu disposé li ko askan bi jox neexul askan bi. Mm-hmm. yow naka naa lay joxe pouvoir jox la doole nga jëlaat pouvoir boobu di ma ko dóor. Mm-hmm. man maa la jox man maa la jox oto maa la mm-hmm. jox gendarmerie. man maa la jox police man maay askan bi maa la jox police maa la jox gendarmerie. nga jëlaat police di ma ko dóor boo ma wanee ginnaaw dama naan kii daal jaratu ko dootul gëm sa dara beneen bi aussi mooy wax. gis nga nit. bis boo xasee wax surtout autorité. ñu ne wax ji amut. bu ëllëgee di nga wax dëgg sax ñu ne du dëgg. loolu aussi beneen question la Covid bi nañ dem ci Madagascar. am na ministre de la l' ancien ministre de la justice génn na ba wax. nee bi ko Covid bi dalee. moom li mu doon yëg ci sibur rek la yëg. certainement bii dafa gën a metti waaw au lieu nga ñëw di def communication buy tiital askan bi mais mënoo leen ne ah Covid bi kat am na. waaye dafa mel ni ki siburu waaye nag moo gën a metti siburu te képp ku yore tawatkat mën na laa yóbbu de def ak ñoom communication bu neex bu dal boo xam ni dañ koy gëm intégré ko seen bopp di ko dundaale ak moom mais pas communication boo xam ni nit ki day dikk nga ni ko force lii la c'est-à-dire forcing boobu moo mm. ci dugg pour man bokk na ci li nga xam ni moo échegal affaire bi beneen bi couvre-feu nañ ñu wax ban njariñ la ci couvre-feu bi am mm. mais bëccëg gi yéen a ngi jaxasoo guddi gi tëju leen mm. mais guddi nit ñi dañuy nelaw yi mm. foofu ana contact bi wala kon da ngaa waroon dugg ci biir kër yi ne nit ñi bu leen bokk lal wala bu leen bokk ay nekk. c'est-à-dire yooyu yëpp dañ ko waroon étudier est-ce que couvre-feu bi amoon na sens. loolu aussi c'est une autre question. parce que tamit le fekkee tamit ñu defoon ko. Euh, te ay nit am na nit yi nga xam ni ñu dakaar wala feneen ak. feneen mais sëñ bi ñaata doomu ah, aadama la lor am na waroon nañ ñëw gérer seen kër. bon ñu téye leen fa yooyu. xam nga ñun dañuy liggéey ak ay chauffeurs. Hmm. ñuy génn di daw. Hmm. yor seen oto. billaahi wallaahi wa taala ja gàcce ngalaama sénégalais yi. Hmm. yàlla na leen yàlla jàppale sénégalais billaahi ñetti weer yi ñu leen tëj ci nga xamee ni gor booy wër gor dëgg téyel ab sénégalais sénégalais yi ñoo gore mm-hmm. jàkk gàcce ngalaama waa sénégal mm-hmm. di nga ciy gis ñu dund lu metti loo xam ne lu tar loo xam ni billaahi wallaahi wa taala kenn du ko yëg ñu ngi ci passé de salut sax sunu grand bi Mbaye Babou Gueye yàlla na ko yàlla yërëm mm-hmm. muy ku baax ndax dañ ci mosoon waxtaan ñu ci ñu def ay essence ci yu bare bare bëri ku jàmbaar a ngi noonu yàlla na ko yàlla yërëm nga gis aspect yooyu tey nga tëj askan bi ban impact lan la jur. léegi bi nga leen libéré askan bi lu ñu mujj def dañu relaxé wu daal nit ñi daal doon doon fontoo exemple par exemple. Mm. léegi qu'est-ce qui va finir mooy yow ñu la gëm. Mm. benn cas am na nga tëj leen junni cas am nga libéré leen.

ab peuple kenn du ko forcé ab nation kenn du ko forcé foofu daal laa amoon lu ma ci wax. waaw muy ay kàddu yu rafet léegi jox euh, beneen élément bi. Mhm. Euh, pour ñu mën a jàll parce que def naa li ñu desee euh, si waxtu bëreetul noonu de ah. waaw waaw ok léegi noonu la dem léegi dañuy jox beneen élément bi ñu mën a dugg suñu. ce rapport intitulé Magal dans un contexte de Covid-19 est produit par un groupe de chercheurs la plupart mourides de surcroît devait sonner comme un avertissement. Le Magal chez soi, conclu par les experts, n'a rien d'anodin. Au contraire, c'est la triste réalité. Organiser un Magal, l'un des plus grands événements du Sénégal dans un contexte de coronavirus, serait indéniablement un risque énorme d'explosion des cas de contamination. Les lendemains de la Tabaski sont suffisamment édifiants de ce qui pourrait arriver au cas échéant. Certes, le mourir est lié au Ndiger. Ce rapport... Est... bon ñooñu aussi am na ñu leen di critiquer mm-hmm. man critiquer wu ma leen de mm-hmm. dañoo doon ay boroomi xam-xam yoo gëstu ni ah màggali buñ ko naree def mbooloo mi dajaloo mm-hmm. mbaa du jur risque ñoom dañoo laaj rek dañoo bind seen benn bataaxal buñ ko bindee dañoo jébbal loolu sëñ bi ñoom wax seen xalaat selon ni ñu gisee loolu dans un contexte de la démocratie man nga ñaawluwuma ko ñooñu doonoo joxe xalaat rek sénégal yi nañuy def ndànk ku wax rek ñu jug hii kii du murit kenn nangam du àdduna du noonu nañ def ndànk ñooñu ay taalibe lañu mi ngi mel ni nga nekk taalibe nekk médecine xam nga covid bi am na te covid bi dafa gaaw a wàlle te covid bi kat am na ay risque nga ni ah waa lii moom mbaa bu amee du gaañ gaañ suñu yoon wi waaye nga dal di bind sa xalaat bind ne naa bind wax sëñ bi ne ah lii de laa ci gis lii de laa ci xalaat dama lay laaj est-ce que loolu aay na. aayul donc ñii il faut que nit ñi di ibbi seeni xel. léegi contexte màggal nag biñ ko indee ci cadre Covid. ñun nekkunu ci cadre Covid. màggal du Covid ñun nekkunu ci ay Covid xam nga lan la. mooy comme li ma wax ñun dañoo nekk ci tamit feebar bi dañ ko jël. Euh, fañ ko yóbbu ñun ñu ñu diaboliser que de telle sorte que tamit parce que feebar yu bëri jot na fee jaar. Euh, moom dem na ba à un certain moment mu ni il faut vivre avec le euh, kii. Hein? il faut vivre avec. yes la the last time bi libéré population bi la wax. Hmm. finally il faut essayer essayer la wax il faut essayer. celui qui essaie il ne peut pas. Hmm. <laughs> il faut comprendre le, le, discours. Il faut essayer. Hmm. Celui qui essaie, il ne peut pas. Puisque tu sais qu'on ne pourra pas, et on même en, arrière, on ne pouvait pas. Pourquoi vouloir maintenant que tu bi? un Il faut que tu bi. un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 jërëjëf leer na mooy comme li mu wax sànq rek kon ça veut dire que ñoom. Euh, disposition yi ci war yëpp. ñoom def nañ ko def nañ ko. dama lay jox benn anecdote mm. demal France nit ñaa ngi dox ci supermarché yi. Mm. ñu ngi dugg ci rassemblement yi. Mm. ñu ngi def li ñu war a def lépp en en ci mbooloo. léegi nag ñiy wax si màggal. dañu comprendre université yow xam nga université fa la fa ne. falaa ne woon fa nga nekkoon. université ku mën a nangu université laa wax de. waroo wax si màggal. université gën a garaw téeméeri junni yoon risque de contamination bi mu ni mu mu garawee foofu sax mais màggal da ngeen daja rek lekk rek ku ne jug dem sa yoon mën ngeen a bañ a bu ngeen dajale ci kuréel wala yooyu te même bu dul lool sax ah? même bu dul lool sax rassemblement yi organisé lool sax bien ah? avant ay Covid ak yeneen ak yeneen mm-hmm. mën nañu wax que ni euh, ay structures yu organisé ñoo gën a organiser waaw l'olu fossi. côté côté yëpp côté yëpp sax foofu bëgg naa si wax tuuti. Mm. mooy d'abord le concept du magal selon ñi wax naan defee ko sa kër L'olu laa bëgg mu leer tuuti. Mm. Serigne Touba moo ko woote woon bi mu koy woote dani mm. nan ko ñëw moo bim bi mu ko wootee dani fu murit mën nek rek nako def sëñ Fallou nak bim mu ñëwee ak sëñ Mourou Moustapha. jamono yi nga xamante ni si sëñ Mourou Moustapha ak sëñ Fallou nek nan fi ci lañ joxe ndigal la sëgam mi ngi fi nak nañ ñëw defee ko fi ci wétam te sëñ Mourou Moustapha Serigne Fallou égal Serigne Touba rek. mbir mi moom noonu la Serigne Saliou égal Serigne Touba ñooñu suñu waxee Serigne Touba moo wax ndax Serigne Touba moo waxoon ni sama xalifa bu toogee saa su waxee ne mel na ni man maa wax kon ndigal la loo xam ne Serigne Touba moo santaane nu ñëw ci biir Touba defee ko fa ndax booy xool doole ji li ko gën a dolli ci doxinu yoonu murit màggal gi si la bokk te impact bi muy am ci côté économique côté social impact boobu muy jur ci wàllu évolution ëpp naa xalaate bañ a def hmm. kon ñi ngi wax naan dañ ko war a def ci seen i kër ñooñu xamuñu luy ndigal sëriñ bi dañuy tuubaa li habdin hmm. muridin saadixin bi dëggal ci lan bi xidmatin mooy liggéey aw buy hubbin te nga bëgg aw hadiyaat te nga jox adiya te concept yooyu yëpp boo ko boo ko résumé yi daal di duggaat ci ndigal hmm. ndigal li nag ba mu jibee te mooy sëriñ bi dafa wax ni nañ ko ñëw defee ko fii ci wetam kon lenn loo ko war a mën a tax ñu def ñu maanaam ñu bañ ki jaayante xam nga mooy kan sunu borom ba wane inna allazina amnu wa salat wajhudu fi sabili bi anfusikum wa amalikum bi anna lahumul janna lol la si yalla tek neena ñi nga xam dañu joxe seen bakkan ak seen alal ci yoonu yalla neena ñooñu ulaayka humul fa'isuna moy ñi nga xam ni texe na nu di kugul terrorisme lolo tax kenn mënu ko xex mm. parce que da ngay jaayante sa bakkan ak sa alal ngir yalla mm. noonu lu murid def bi mu ne lil Moustapha nawetu maa yu jot di suñu tool xaraawa inni ahmadu ñooñu dañoo jaayante seen diggante ak seen borom Covid bi nag. ni ko mun Mountakha waxee jaamub yàlla la buy def liggéeyam. kon kooku du ñu tee ñu nit jaamub yàlla gi doon ñu nu def suñu diggante ak seen borom. Hmm. moo tax yonent salaa salaam ba mu ne bu musiba amee na ngeen dellu ci ñaar. Hmm. te xam ne mooy seen doole dellu leen si yàlla. ak di ko ñaan. Hmm. ndax dañuy adduhaawu silaaxul moominu. yoonu salaa salaam moo ko wax. nee na na ngeen xam ni ñaan mooy gàllaayu gànnaayu jullit. Mm. te Covid bi day noon boo xam ni dana war a yor gànnaay bu koy dàq kon gànnaay bay dàq Covid bi ñaan gi ci la kon nan dem màggali mm. Touba. Mm. ñaan ci sëriñ bi. ñaan ci yàlla Covid bi génn ci réew muy ay kàddu yu rafet muy ay kàddu yu rafet ñu ñaan euh, sunu borom ak euh, euh, màggal gi. lépp dem lépp dem. incha allah lépp rafet lépp tawfeex waaw ñu ñu dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm. ñu jàll si léegi looy tàggatoo. jërëjëf tàggatoo bi mooy sant la. sant rajo bi vraiment ci seen liggéey ak waa MSEC international yëpp fu fi waay mën a nekk ndax certainement xam naa ni connexion bi moo kii mais ñoom dañoo prévoir dugg ñoom Baye Talla Wade Baye Cheikh Fall Boubacar Touré c'est le teranga ñoom ñëpp président ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu waa convergence pour la défense des valeurs républicaines di nuyu waa ngaay aussi di wax rek ne ñoom it vraiment am nañ discipline parce que biñ ñëwee forcé leen masque yi ñëpp ko takk ndax bëgg jàmm.

nous ñoom dañoo ñëw rek pour def seen liggéey te yàlla na leen yàlla dooleel di Serigne sunu xarit la moom tamit wax fa yàlla di nuyu Oustaz Dame di wax rek ne impact yi ñuy waxoon sax yépp dikkul ndax euh, point bi moo ko de waaye leçon de waxoon ni leçon parce que loolu moo doon titre bi publier mm. kon war nañ ko souligner nit ñi xam ko mm. leçon bi ñu ci Covid mooy mm. Covid bi mu ñëwee caaxaan yu bari Sénégalais doon def dañ ko bàyyi bu l'essentiel la ñuy def ku ne bi dem dañuy dem def l'essentiel ku ne bi dem sa yoon kon covid bi contexte boobu mënu indi ci force ñu ñu def la def fayda la ci des ñu bàyyi ko loolu la ñu war a continuer mooy leçon bi ñu war a ci covid xam ni caaxaan dafa war a jeex beneen bi mooy màggal tubaa gi sëriñ bi dafa joxe ndigal na safar yi ñu def nañ ko bàyyi ñu lu waaye naroon def ci safar nañ ko indi màggal mais loolu nañ ci jànge leçon la mm. nañ jàng ci leçon ni safar ñun ñoo ko sos mm. yow loo sos ak luñ la digal bokkul liñ la digal mooy màggal gi la nga naroon def créé ko def ko ci li ñu sos taxañ ko lépp xaalis boobu yëpp taxañ ko dugal ko ci màggal gi ndax màggal gi mooy ndigal gi kon safar gi nga xam ni yaa ko sos aussi beneen contexte la boo xam ni covid bi selon ni sëñ Muntaxa joxee ndigal war nañ cee jàngat nag ab leçon xam ni yàq baaxut Hmm. loolu laa amoon ci lu ma ci wax asalaamaaleykum hmm. wa rahmatulah. ñu koy jaajëfal bu baax muy euh, Talla Thiam dañuy am mbégte saa su nekk di ko dalal suñu euh, plateau hmm. ñu koy jaajëfal euh, bu baax di jaajëfal képp ku nga xam ne yaa ngi doon déglu couleur urbaine sur la meilleure bande fréquence 93.5 nga FM ñu leen di jox dig dégg incha allah ba benn yoon ak technicien bi Mame Gour tamit comme ni nga ko waxee tamit communication bu jaaree yoon. mu rafet moom. dëgg la Mame Gour ñu ngi koy jaajëfal waaw ñu koy jaajëfal waaw sunu xarit la lool moom tamit di ko jaajëfal vraiment.